waaw solos daje du dara lu dul wuyu woote bi nga xam ne président Macky Sall woote na ko muy xeex coronavirus ñu ñëwoon fii tey Sandiara pour sensibiliser waat nit ñi waxtaan ak ñoom fàttali leen ne feebar mi ngi fi ba tey bi ñuy ñëw fii àndaale nañ lu toll ci 3000 masques ak ay gel pour ñëw jox ko waa population de Sandiara waa tey Sandiara lañ ñëw mais du Sandiara rek la ñuy yem parce que dañuy def ngexoox suba te buñ paree ngexoox dañoo ciblé marché hebdomadaire comme dañoo gis ne marché yi ñëpp di tase au total on a beaucoup de mosquées ici pour Sandiara c'est 3 Sandiara mil lañ ko andil comme yeneen localité yëpp tamit ku nekk dinañ fa yóbbu dara. naam mbas mi fi duggee yàgg na ñun yàgg nañoo xeex mbas mais ñu ngi ko doon def ci biir commune tey nag ñu jugé nécessaire ñu ne nañ déplacé wu ñëw ci marché hebdomadaire yi comme fii la ñëpp di tase buñ ñëwee fii dina yomb ñoom it ñu mun koo yóbbuwaat fi ñuy dellu mhm, loolu moo ñu gën a ñaax na ñun fii. di leen xamal ne temps yi ñu ngi dégg na feebar bi wàññeeku na mais di leen xamal ne feebar bi jeexagul. ndax fii ñu wàññeekoo nii fii bu ñu bàyyee loxo yi rek mën naa yéegaat ndax am na ñeneen ñu mu arrivé comme ñun ñu ngi ciy góorgóorlu booba tey bi feebar bi commencé léegi macha allah ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo jël raw gàddu gi ci xeex Covid bi moo waral ñu ñëw fii tey pour gën leen a ñaaxaat ñu gën a góorgóorluwaat te xam ne feebar bi bàyyandiku du mënu mënu koo fee jël foog ñu gën a waat xam ne feebar mi ngi taxaw loolu moo waraloon ñu ñëw fi tey loolu suñu fierté la parce que dañ ciy am contentement parce que nga nekk ci àdduna feebar wàcc ci dëkk yëpp yow nga ñëw bokk ci ñi nga xam ne ñoo ñëw raw jël raw gàddu gi loolu fierté la ci ñun en tant que ndaw waa suñu leader yi moom dañu leen di jaajëfal di leen remercier ndax bi feebar duggee ba tey kenn bàyyiwul loxoom ñoom ñëpp ñu ngi ci guddi suba tàkkusaan pour xeex ko pour mu jóge fi jàppale ñëpp pour feebar bi jóge fi kontaan lool nag ci jeunesse féminine départementale bi nga xamante ne moom lañ am pour dara Sandiara

ay don de masque wéyal sensibilisation pour stopper ensemble la Covid-19 ku xool aussi fa mu tolloon ñoo nous ci un ay nombre de cent jëm kaw donc dafay jaaru ñu gën a farluwaat wéyal une sensibilisation pour nag ñu euh, Covid bi tous ensemble mu abal ñu suñu réew ndax kenn xajoowul ak